خطواتي كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل لهم ربا بمنات كانوا يعدون ترك الورد مع الشبع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل ألقى الشطر ذا لكن قاموا سراعا لإعياء الدجنات باعوا فدولا بذكر الله حطالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم نافين الصلما وليلى بالبشارات فعيث ما برشت ليلى ببحجتها عنا تولوا إلى المولى بتعاتي يرثون ليلى وسعدا في قيامهم مستأنسين بأذكار وآيات حديث jaajëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp seen site bi di tennis actu point com tennis tv ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax euh, am mbégte dellu si waat ànd ak yéen ni ñu leen ko diggee woon doore woon ko àjjuma ba léegi di opération déguerpissement déguerpissement bi nga xam ni ñu ngi koy def ci ndigalu Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké xalifatul Xadim jaar ci euh, porte parole am di ki euh, nga xam ne moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre mu jaarale ko ci nga xam ne moo di mairie bu euh, Touba Mosquée police gendarmerie ñoom ñëpp ñu ànd ci liggéey boobu waaye daayiratu Safinatul Aman ak li nga xam ne moo di conseil départemental de la jeunesse ak ay association yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell bi ngeen gis nag ci image yi noonu li nga xam ne rek mu ngi am foofu ci corniche bi te ñu doroon ko fi nga xam ne moo di garaasu Daarul Muxti ci àjjuma ji euh, samedi ñu nekkoon ci fi nga xam ne moo di euh, garaasu Dakar jàpp fi nga xam ne moo di tali ba fi nga xam ne moo di euh, nga xam ne moo di yoonu daaru ba ci dimanche bi ñu nekkoon fi nga xam ne moo di yoonu daaru aussi motile fa dem fi nga xam ne moo di ndaamaatu fi ñuy wax kër moo Moodu ba ci corniche daara Jolof tey nag ci altine bi ñu xëyaat euh, euh, wéyalaat liggéey bi rek ci euh, fi nga xam ne lenn ci fi nga xam ne moo di corniche daara Jolof jàpp fi nga xam ne moo di marché Guédé ba ci yoonu Touba Belel ngeen gis xaw di noonu di daaneel li nga xam ne lépp loo xam ne rek mu ngi ci mbedd yi te ñu am ndigal ci war ko fa mën a jëlee te mu bokk ci loo xam ne luy gën a taaral dëkk bi la waaye luy gën a yaatal mbedd yi la luy gën a xeexal euh, tubaarkalla macha allah dëkkuwaay yi ak doomu aadama yi fépp fu ñu mën a nekk euh, ñu doore woon ko rek kon ngeen gis image yi noonu ñuy wéyal liggéey bi ci euh, teewaayu gendarmerie ni ñu leen ko waxee muy escadron surveillance bu Touba ak brigade wala boog commissariat spécial bu Touba Mbacké ñoom ñëpp ñu ànd rek kon ci liggéey bi noonu di taxawu di saytu liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy amal boobu ba léegi. Euh, tubaarkàlla mbooloo mu bari it euh, génn taxaw di euh, seetlu ngeen gis lépp loo xam ne rek nekk na di xeetu mbaar wala mu nekk ay kiosque wala mu nekk ay xeetu dépôt moo xam xeer la ñu fay jaay moo xam ay mool lañu ñu fay jaay brique wala ñu fay jaay sax li nga xam ne moo di ay fer feru bâtiment tabax bâtiment wala lépp lu xeetook moom rek wala mbaar wala toute euh, place boo xam ne rek béréb boobu def nañu ko te méngoowul ak euh, li nga xam ne moo war a nekk ci euh, béréb boobu ngeen gis ko noonu tubaarkàlla mbooloo mi wéy di gunge wala boog di seetaan waaye tamit rek incha allah ñuy wéy di leen ko toppal di wéy di leen ko toppal incha allah rabbi ñu jeexale nag ci ngoon gi ci wetu gaaraasu wala boog ci wetu fi nga xam ne moo di corniche su Guédé kon gërëm ngeen gis image yi noonu euh, ñu wàcc foofu war a wéyalaat nag liggéey bi ndax xam ngeen ne liggéey bi tamit dañu ko doore ci corniche bi waaye ci xabaar yi nga xam ne jote nañu ko ci euh, mairie bu Touba ci kàddu euh, Abdou Lahad Ka mi nga xam ne moo ko jiite liggéey bi bàyyiwul fenn ci dëkk bu sell bi kon suñu jógee ci corniche bi dafay mel ni rek dañuy wéyal liggéey boobu ci biir dëkk bi national bi ba ci fépp foo xam ne rek lu mel noonu ma nga fa ñu mën koo wéyal liggéey bi xanaa kay laaj bi nga xam ne ñu bari ñu ngi koy laaj te xañ na tontu bi ba léegi ñu amaguñu ko waaye xañ na bu ñu déggee kàddu kilifa yi tamit xañ na dafay mel ni rek dafay tontu loola euh, laaj boobu moo di rek euh, euh, station service yi nga xam ne ñu fi nekk jaay ay lu mel ni carburant ak yu mel noonu nga xam ne tamit gis nañu ne ñu bari ci station yooyu seen pompe yi ci mbedd mi lañu ko def te ba léegi rek gis nañu ne ñu ngi dema di amal seen ab liggéey te it ñu di leen romb ndax euh, dafa am app bu ñu leen jox wala ndax dañu leen a boolewut ci mbir mi euh, laaj la boo xam ne xañ na ay euh, fan ci kanam incha allah tontu bi dina mën a rot na mën a leer ci bopp ñi nga xam ne ñoom la yitteel ñu xaw leen jaaxal lu ci mën a am rek yooyu leen di ànd ak ñun jamono ju saa su ne lépp loo xam ne rek ruus na ci opération déguerpissement bi ñu leen ko andil إن شاء الله ربي نجينا وي رك دي ني و غونغي واي تي وي دي لين ريتلي دي باخ باخ سين كولو دي اك سين كولري كون با بنين الله ربي حتى يروه صحيحا بشعادات من أدلات قوف الله مالكهم حال وجعل إذ في البدايات قوف السنب بيسجرهم وفي النعايات إجلال الجلالات من عاتلا ثم من نفس دون من كونها ذات مكر والقيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات من تلاسم صبر للإله على بالعزاة جميعا والمصيبات كانوا إذا نابح من نحوهم ضرر تابوا إلى الله من كسر القطيئات ومن مناقبهم روان ربهم عليهم الدحر حسن كل ساعات ومن سجاياهم قوف النفاق بدا خوف الفضوحات في حول القيامات من حط وادع للقحار مالكهم وسق والسعد مع تثير عافات حلت التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنعاء الشكايات الحلم سيمتهم والحلم ضيرنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى خير البريات صلى عليه مع تسليم مرسله بلال وصعب من فاسوا بجنات شلى عليه مع تسليم باعثوا أزكى ثلاث دعا نكف القرورات التسليم قالقه بالآل وسحب من عاس العطيات صلى عليه مع تسليم مالقه عسكى صلاة بحا نحو نحو الفتوات صلى عليه مع تسليم مالكه عسكى ثلاث بها نحو الفتوحات صلى عليه مع تسليم راسخ بالعال والصحب من دانوا بطاعات صلى عليه مع تسليم مكرمه عسكى ثلاث بها نحو الكرامات صلى عليه بتذليم مسوده بلعال والسعب منال العنايات صلى عليه بتسليم مشرفه عسكى صلاة بها نحو الكشوفات صلى وسلم من في الجعر قدمه عليه بالعال تعداد القلقات صلى عليه مع تثيم رافع عسكى سلات بعانه نحو ارتفاعات قدوتهم فلا تراد دعاهم للملاقات على الحبيب بن عبد الله سيدنا فلا تكاف كفاهم كل قمات على المشفع يوم الحشر في الكرماء فلا تشاف شفاهم من